dangeen jëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saasune ñu ngi fii nag ci MK Chouchir nekk ci parcelle Assainies unité trois ci tali bu bees bi. tey nag falaa fekk promoteur bu mag bi jam production kenn du ko présenté promoteur bi ngarale diggante Sénégal ak bi fu nekk rek bu demee ñu ne fa la gën a mu ne jam maa lay nuyu. Jili maa ngi lay fay avant tout dañuy sant yàlla bu baax julli Seydina Mohamed sant suñu ñaari waajur. di gërëm suñu sëriñ Maolana Cheikh Ibrahim di sant kilifa diine kilifa aada yi nekk ci réew mi yëpp. di ñaan ci réew mi jàmm di ñaan ci bitim réew jàmm di wax ci réew mi muy mbas mi nga xam ne moo lëmbee àdduna bi ñu ngi ñaan yàlla na ko fi yàlla jëlee si barke Seydina Mohamed moo tax sax pour ñu sensibiliser gars yi nga gis ma takk masque nga takk ko yow jili waa jili nag dañ ne masque pour kii corona bi la mm-hmm. respecter distance yi laal sel waaye sa masque bi nga baal ma bokk na ci gën a tas corona ci réew mi masque bi tilim na quatre jours yaa ngi ko takk vraiment dili sansel sa masque bi waaw sa masque bi moom bañ a takk masque moo ko gën. Ah, du ma automatiquement mu ngi bëgg a dagg sama masque pour que jaxase ma ak population bi la ma jiile du takk masque waaye yàlla suturaal na ma ba bas doy na ma si. non du jaxase la ak bi sax boo gisee ma bëggoon ko kii dama la bëggoon a jox masque bu bees waaye comme nangoo ma laal bi masque bi tilim na lool. <laughs> vraiment vraiment masque bi. non bi kañ koo jënd. léegi maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu xaadim di nuyu waa MK Sosir ma fekk nii xam ne janax day bëri pax waaw ñun moom ñu ngi ji ñu ngi ci lépp di nuyu Basirou sama sëriñ sama xarit la grand caméraman wasaare maa ngi koy siyaar di nuyu directeur bi baabu ñoom paate di nuyu ñëpp fépp waaye nekk ci àdduna maa ngi lay siyaar rawatina personnel wasaare bi yëpp yow nag sama xarit nga ndax laa xamoon démb tey soog a ñëw maa yow ñu yàgg ma xamal la lu bari ma tax tey bu ma la gisee ngay téye micro nii di góorgóorlu dama ciy fier dama dama dama ciy kontaan affaire bi gëm-gëm rek la kenn moomu ko. bàyyil sa waar yaa ngi ci waar bi di bay. Euh, ñàkk bokk ci course bi rek moo bon PEC 2 nag ci loxo yàlla nekk te gis nañ ne wax dëgg yàlla yaa ngi ciy góorgóorlu yàlla la yàlla gën a yokk gën la kàttanal. ci barke Seydina moom ci lu ginnaaw euh, candidature bi nga xamante ni mu am na ko Gambie mu nekk promoteur boo xamante ni bëgg na jot euh, ci CNG bu Gambie bi foofu. Euh, Jamaïcain xale la boo xamante ni xale bu am gëm-gëm la la boo xamante ne xale bu am bëgg-bëgg la mais xale la boo xamante ne xale bu am fulla la ci lu mu nekk avant tout candidature Gambie Jamaïcain bëgg a doon président CNG bu Gambie loolu lan la. waaw jili avant tout damay ziar sama papa. sama kilifa Père Ba di ko nuyu di nuyu njabootam yëpp di nuyu Mansour Ba suñu directeur nekk université Assane Seck. Hmm. dafa def liggéey bu am solo gis nañ don yi muy def Casamance. loolu la ñuy xaar ci ndew yi ndaw yi ne ci réew mi yëpp. Hmm. yàlla bu leen joxee wërsëg nañuy jël wërsëg wu ñu am di ko bokk ak jaam yàlla yi te moom mu ngi ciy bay waaram bu baax a baax ñu ngi koy ñaan yàlla na ko yàlla yokk. Hmm. di souhaité waat sunu maman di yaayam soxna Père Ba démb la woon ñu ngi koy ñaanal happy birthday to you ah, ñu ngi koy ñaanal happy birthday to you bés bi yàlla na dem ba koy feeteeg sa ay sëtam dem ba koy feetee cent cinquante ans si barke Seydina Mohamed wax dëgg yàlla démb rek maa ngi koy wax bu ñu demee këram fekk muy nelaw bëccëg ñoo koy yàqal nelaw guddi suñ fa nekkee du nelaw suñu coow xam nga rek ay ñun moom fu ñu gaaraan place mbiru làmb coowu làmb lañ fay nekkee te coowu lamb nag dafa xajul sax ci ëtt waxuma la ci biir kër kon ñu ngi koy ñaanal baax ak njabootam gi yëpp dinañu may baax sama jigéen borom nice and sick by ñëwal ñëwal ci ci candidature Gambie bi. waaw candidature Gambie bi lu jiitu loolu ñun ay doomu africain lañ d'abord. benn ay doomu sénégambien sama yaay gambien la sama papa sénégalais. ma ñëw fii di tëgg làmb di tëgg làmb Gambie. ndax sport bu boolewul rek warul taxale loolu lañ koy waxee te boo ñëwee ci àdduna bëree am na fu nekk. ba bëree dóor pour le moment nii Sénégal ak Gambie rek lañ ko mën a noté waaw bu fekkee ñaari réew yooyu ñoo seq bëree dóor ci àdduna ñun ñaari dëkk bu ci nekk ñu am ci wàll. lamb di suñu sport national war nañ ci mën a jaar lëkkale leen ci lamb ci sport. di jël fii ay mbër di yóbbu Gambie dee leen bëriloo di jël mbëru Gambie dee leen indi fi di leen bëriloo boo xoolee sama événement yëpp damay indi fi mbëru Gambie wala ma jël fi mbëru Sénégal yóbbu Gambie loolu pour waaye ne sport dafa war a boole war a aada ak cosaan la cosaan bi ñaar réew ñoo ko bokk. loolu fa lañ commencé d'abord di fa tëgg yóbbu fa événement boo xam ne wax dëgg yàlla adduna bi yëpp gis nañ ko. bi làmb ji passé na tombé Gambie seen élection yi euh, jot. président sortant bi mandaam jeex mu war a laajaat amateur yi. bëgg ñu sopp ñu. sollicité ñu ne ñoom bu ñu sañoon luy doxal làmb Gambie ñu dugal suñu loxo. am nañ si ñun yaakaar te am nañ gëm-gëm bi loolu moo tax nag élection yi bi mu ñëwee gars yi posé kan ñi ñuy demande ñan ñooy posé candidature man ma taxaw ànd seeg samay euh, amateur samay xarit samay am di jàmm ak ñi bëgg làmbu Gambie avancé ma posé candidature. est que am nga idée boo xamante ne mën ngaa yokk làmb Gambie fi mu toll nii nga yëgal ko ci kaw euh, ba fi làmb Sénégal toll làmb Gambie toll foofu. waxuma làmb Gambie sport général laa wax. làmb gàmbi làmb Sénégal chaque jour yàgg naa ko wax am naa idée yoo xam ne ci làmb waxuma la làmb Gambie waaye làmb àdduna mun na ko doxal wax naa ko chaque jour moo ko maa ngi idée yoo xam ne suñ ko tegoon tey ñu exploité ko ci làmb Sénégal léegi tey mbëri di fay ko 500 millions promoteur du perte du ko yaakaar ci sponsor du ko yaakaar ci billet kon kooku soo naan ma ndax am naa idée yu doxal làmb Gambie ji li euh, da ngay wala da bëgg xam. damaa bëgg a xam. tey wax la moo tax ma bëgg xam bi nga bëgg a xam moo tax ma ne la waxuma la làmb Gàmbi waaye làmb àdduna am naa idée ko doxal.